jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek ki fi nekkoon coordonnateur pour programme national des domaines agricoles euh, communautaires di wuyoo nag ci turu kii di Pape Malick Ndour daal dina yëkkati kàddoom rek ginnaaw bu ñu gisee rek ñu daal di fësal rapport yi nga xamante ne rek moom moo tukkee euh, ci Cour des comptes mu nekk nag ay documents yoo xamante ne rek dañ doon ci indi ay leeral bu baax ci anam bi nga xamante ne rek la yoree woon boobu le bopp moomel ginnaaw nag bi ñu gisee na nag am na ay manquement ak ay dépenses yoo xamante ne rek moo waral nag boobulee fonctionnement nag daal di des jaar yoon eh, ci mbir mu mel moom ci jëmi boppam rek daal dinay fësal ab message nag jaarale ko ci page jaarale ko nag ci page whatsapp am def ko ci statém ne na daal kontaan na bu baax nag ci publication rapport yi waaye moom ci jëmi boppam rek ma ngay xaar ba kenn topp ko rek yande yenn yi mu ne nag mbir mu nu mel daal loolu lay xaar ndax nag fi nga xamante ne rek nekkoon na fa moom ci jëmi boppam amul benn xibaar boo xam xamante ne rek tey jii justice mën na ko toppee wala nag ñu koy yóbbu fi nga xamante ne moom mooy ca chambre euh, disciplinaire financière ndax nag moom ci jëmmi boppam mësta détourné benn fukki dërëm boo xamante ne rek moomul ko ba tey rek la mu daal di xam ne ne daal ma ngay toog di xaar rek ba kenn ñëw nag ne ko bi nga nekkee woon fi nga xamante ne rek moom mooy ca boobule bopp moomel def nga fa ñaawteef wala def nga fa ab njuuj njaaj ba kenn tere nag mu exercer li nga xamante ne moom mooy fonction ci biir réew mi moom ci jëmmi boppam rek ne daal lépp loo loo xamante ne rek dafa ñeel ay xibaar ci wàllum développement intérieur bu ñeel boobu les dossiers euh, détail par détail moo xam nag lépp loo xamante ne rek rapport bu Cour des comptes nag daal dina koy fësal bu ca jéemee bay dugal ci ki nga xamante ne rek moom mooy Papa Malick moom mi ngi toog di xaar di kat nga xamante ne rek euh, daal dina koy yëkkati fësal ko nag ci compte statut WhatsApp am du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen yu tey xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir mën a am yeneen i xibaar